combat le novembre mooy dàq ci at bi ak at yi ñëwoon la ñàkk war a bëre dañoo war a xeex. ñoo xamante ne ñu ñëw ay 5 minutes yi noonu. ku affronté ñu reculer xeex ak Ama Baldé mu reculer ñëpp ah bu nee la di nga xeex ak Siteu kañ kon Siteu dama pare man li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom. dóorante ba ne ba ne saay ba mar naan dem naa leen ñu wax man loolu laa gis combat ba. te bu la neexee bu def dara. dinaa mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène nationale la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy gi bawol bawol bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4 virgule 99 euros seen affiche point com le roi en pay view au Sénégal bokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci lutte tv point com ñi ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey lundi 3 octobre 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ci ànd ak Boucar Ndour borom Sine ak Saloum maa ngi lay ziar Omar maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal rawatina mbokk internet tv ni nga ko waxee rek Omar ah tey la lundi 3 octobre Omar 2022 ñu ñëw ak yéen si yéenekaay yi bàyyeegoo wala dem nga bàyyi ba ñëw man bon mën naa ne béy naa béyum parce que daw ma tool nag ren moom sincèrement dem peut-être dem xooli jiw gi ni mu def ak nawet bi affaire yooyu mais sincèrement par rapport ak daaw bi nga xamante ni sax peut-être dem naa tool téye machine yooyu ren defuma ko peut-être jot beeg yooyu demee noonu waaye nag béy nañ parce que boo jëndee jiw jënd engrais surtout engrais bi ni mu seeree mën nga ne béyee nga béy nga rek waaw waaye daal nañ gën a jàppale béykat yi. parce que neex na ñun ñëpp amar ay béykat lañ. parce que booy ji di jënd gerte di jënd engrais ak yeneen ak yeneen yore famille dëkk wax ñun ay euh, ay villageois lañ kon xam nga ne foog ñu jàppale mbéy mi parce que mënoo di jënd dund di jënd euh, dugub day métti waaye ak lu mën a xew daal ñu ngi sant yàlla waaye daal ñu gën a jàppale béykat yi parce que Amérique sax mbéy moo tax ñu yegg fi mu yegg fi ñu yegg tey si koom Omar kon nag Boucar war nañoo gën a jàppale béykat yi gën a conscientiser ndaw ñi ñu xam ne bay mën naa sukkali ab réew ñu bàyyi ci xel bu baax a baax journal bu suñu làmb bu kër daal di ñëw ak ñun fësal Papa Sow mi nga xamante ne ni moom la ñu tuppee woon le Puma journal bi nag changé na tur bi indil ko le Messi de l'arène daal di ne nag petite par la taille grande par le talent. kon nag yaakaar na ni loolu rek ça veut tout dire. ça Omar xoolee waaye euh, a wax ba tey rek nekk koo xamante euh, a fait tous ses beaux euh, ko mën a waxee rek Omar waaye nag defoon na ay débuts fanfare yoo xamante ni tey waaye ay débuts yoo xamante ni tey yu étincelant yoo xamante ni tey macha allah nekkoon nag terreur pour Pikine parce que peut-être mën nañ jàpp ne mbëru yu bëree bëri bëri bëri na ak ñoom yàlla suturaal ko may ko ci ndam waaye daal ak lu mën a xew dañ koy boole rek si li ki nga xamante ne te moo di Pape Diop Boston moo di Eumeu Sène moo di euh, Boy Bambara peut-être seen taille gis nga niñ toll par rapport ak mm-hmm. euh, géant mastodonte yi fi nekkoon waaye teewul euh, marqué nañ seen empreinte si lamb ji ba lamb di leen di bàyyi xel moo tax journal bi di samplaaj ba xam ndax ndax moom nekkul en danger contre Siteu bi nga xamante ne mën nañ ne c'est un c'est kon nag yaakaar naa ne Boucar laaj boobu laaj bu boo xoolee Papa bër la boo xamante ne ni ñi ko daan ñëpp dañoo dégg daal daali ci làmb comme ni ñu ko ni ñu ko ko waxee woon keroog Siteu nag war a nekk xale boo xamante ne ni moom mooy nekk ci yoon xale bu war a confirmer xale boo xamante ne ni dafa am ñaari sortie yoo xamante ni daf ko échec yu ko waroon a yóbbu ci VIP yi mu war a ñëw jàkkaarloo ak ñu bëri ci ay expertu làmb boo leen ñu ne Papa Sow daan na Siteu loolu du nekk lu lu bees wala du nekk lu ñuy bett mais Siteu daan na Papa Sow moom loolu mooy information en tout cas ak lu ma neexee daal Omar ñaari champion la ñoo xamante ni te a bëre combat gis nga daanaka mën nañ ne depuis deux ans nga nii tey mënu ñoo fexe Omar ba arbitre génne seen diggante waaye daal ñu ngi ñaan yàlla le 6 novembre bi incha allah yàlla def si jàmm ak ba ñaari mbëri mën a taxali ko ni mu ko waxee rek làmb bu combat bu xasee taxaw Omar ku ne mën na daan sa morom mm. donte des fois lu ëpp par rapport ak moromam maanaam ñu ne kii mooy favori euh, par rapport ak xeex par rapport ak bëre par rapport ak taay ak yeneen ak yeneen wala par rapport sax ak exploit wala fi nga jaar waaye ak lu mën a xew ñoom ñaar Omar ku si nekk tey am nga euh, wéy boo am ci làmb yaakaar naa ne ñoom ñaar sax bokk nañu adversaire de commode ndaxte Papa saw mi daan na Boy say Boy Sey daan na Siteu Pape Mor Lo moom non Papa Sow ak Pape Mor. ak lu daal Omar ñëpp ñëpp ñëpp ku nekk daal mën nga daan sa morom waaye li leer ba leer mooy que ne tey pression bi côté Siteu la war a mën a gën a ëppee. parce que Papa Sow bëri na ak ak ak ay champion yu mag a mag a mag il a fait waaye ni ma koy waxee rek lamb du mobilisation kese. kon Siteu tey bu munta daan Papa kon foofu noonu y'a problème li ko Père Max waxee kon bu bu yey boona tekki nga bëgg kon nag euh, pression bi côté Siteu lay gën a amee doole. côté Siteu lay gën a amee doole bu kar waaye ak lu mën a xew rek nañu ci yegg ak jàmm buñ ci yeggee ak jàmm yàlla nañu ko tal suñu borom bi yóbbu ñu si ak jàmm ku ci nekk def li nga war a def suñu borom ñëw ak ndogalam leneen li nga xamante ne nii tamit gis nañu ko mu war a am le 16 octobre foofee ci arène nationale armée bu benn baraak moom may jàkkaarloo ak mbay guy gi mbay guy gi nag. dafa sës si bi fi toll nii. waaw te Mbaye Gouy Gui doo au mur noonu ko journal bi bindee parce que dafa nekkoon ci élancé bu baax macha allah Omar ñi ñi amoon ci moom yaakaar mu amoon mbooloo commencé woon ah, amoon ëffari boo xamante ni peut-être même ça à les réseaux sociaux waaye gis nga Zarko moo ñëw fere na ko fi toll nii nag mu war a bëri ak armée armée tamit ku ne xam na ne si defet la jógee si digganteem ak ambulance bu Thiès boo ku ci def lu nga war a def rek suñu boroom war na laa mën a suturaal parce que ay xale la ñoo xamante ne ni mën nañu làmb loolu te làmbe nañu leneen li nga xamante ne gis nañu ko ci écurie bu Grand Yoff mbooloo Fourrière T-Max caatu xaar yàlla ñoo bëgg a démissionné nag ci écurie boobu yëmal si ñoom sax daanaka mat nañ set euh, mbër yoo xamante ni te amateur mën nañ ne ah, bokk nañ si daal si nga xamante ni rek moo di euh, bëgg nañ seen lettre de démission ba si Aldo Pablo ak ñeneen ak ñeneen ah caatu Grand Yoff ñoom ñëpp dafa mel ni daal bëri nañ seen lettre daal déposé pour moo di ca écurie Grand Yoff dafa mel ni sax commencé woon nañ di entraîner à part waaye daal ñu ngi annoncé ne ah, nga xamante ni rek moo di maanaam tey Castor ah, euh, si écurie bu nga xamante ni Père Diène moo ko pour rek maanaam tey commencé fa dugg entraîné waaye daal ak lu mën a xew demaguñu foofu waaye daal bind nañ seen lettre pour bàyyi Grand Yoff ñu bëgg a bàyyi waaw loolu am nañ seen am nañ raison bu mën a tax tey peut ñu bëgg a bàyyi lu simple première gala bi nga xamante ne am na ci saison bi samedi dernier la am ca stadium Iba Mar Diop ordinateur nag waree na fa boppam bu baax waree na fa boppam daaw fils de Batling moo ko jëloon ren nag ordinateur moo njëkk a jël gala bi njëkk a am fii si euh, Dakar Ndiaye mu nekkoon fële sa stadium Iba Mar bi ak Jax production Ah, ñu tegoon fa mise deux millions cinq cent mu jël ko jël làmb jooju noonu Omar ci kaw Monandos ah daan fa Toubacouta demi final dé tamit mu demaat final moom ak ki nga xamante moom la ñu woo usine technique moom Toubacouta tamit ñoo demi final tamit mu génne ko par décision arbitrale wala par point nañ ko mën a waxee rek donte nag sax jote nañ fa jote bu sew waaye loolu yëpp yaakaar naa ne euh, lu ñu war a mën a éviter la rek parce que tey ordinateur tey icône na tey ci lutte simple waaye ko waxee il s'est kon nag war na ñoo war a mun a daal xoolaat mm, ah, def fair play ni ma ko waxee rek ordinateur Toubacouta du derby donte nag li ñu naan làmb du maas dabante la mais euh, nañ gën a maanaam daal joxante ci respecté woon te xam ne ñoo mën a may xaalis seen bopp jarul ñuy andi ay rànk ñak yu demee noonu. ordinateur Reug Reug laa gisoon mu koy daan te ordinateur mosoo ko daan te mosoo gis ordinateur andi moom bruit wala saaga ko wala yeneen yeneen dootu démb nag jote nañ ordinateur nee na Toubacouta da na kurpeñ a mun la parce que lu simple xamee wuñ ko violence kon daal nañ xoolaat seen i na ngir daal ah boolewaat seen xol te xam ne la sport la rek. Toubacouta mooy xale. xale nag da nga fi xale. ordinateur mag la. mag ji sax du magu magu magul noonu waaye nag moo ko jiitu ci moo ko jiitu ci néeg bi mhm. kilo la jiitu ci néeg bi nag bu ngeen demee ba mu war a yàlla dimbali la ngeen di bokk néeg bi mhm. war nga koo jox cër ci biir néeg bi mhm. ak lu mën a xew xaw ma nag luñ jotee leneen li nga xamante ne ne gis nañu ko ci journal bi mooy Guèye mi ngi lancé nag ay defeem di wax ñi mu bëgg bëreel bokk na ci Petit Lo Ndongolo Alliance Balde. Petit Lo Ndongolo Alliance Balde Guèye de ñooñu la bëgg a bëreel dafa mel ne nag tey ah, nekk xale boo xamante ni tey yaakaar naa ne moom tamit mu ngi commencé di wane wu boppam ndànk-ndànk wane na daal wax na daal ñi mu bëgg a bëreel. wax na ñi mu bëgg a bëreel waaye Gaston Mbengue nag the best le meilleur comme ni ñu koy waxee ginnaaw bi mu tëggee Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ba noppi ci acte 2 bi am na nag combat bi muy wàcc diggante Balla Gaye ak Boy Niang rëg-rëg Forza Franc Sokh Marley Sokh Marley ginnaaw bi mu tëggee remake Balla Gaye tëggaat Gris Bordeaux Balla Gaye ak ñi nga xamante ni te peut-être Ama Baldé Malick am na daal affiche yu bëri yu yu yu mag ne xamante ni si wàllu lamb tey moom Gaston Mbengue moo ko tëgg moo tax Mamadou Koné bu depuis New York daal di wax naan euh, Gaston Mbengue euh, lu tax daal ñu naan Gaston the best dafa mel ni nag tey peut euh, journée yu mag yi nga xamante peut-être dañuy gis mu koy tëgg si saison bi bokk na li tax ñu koy dàkkantalee tur boobu sa xam ne Gaston moo tëggoon amaa Baldé malik ñaa Gaston moo tëggoon Balla Gaye 2 Mohamed Ndao Tyson bëri na ay combat yi ndaanaan yoo xamante ne nii Gaston Mbengue moom moo ko tëggoon journal bu record bu kar daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne nii xew na démb ci stadium Iba Mar xale bi nga xamante ne nii musta daanu boobu ba léegi muy gën a mboor gi jeex jàmm démb defati na mbamb ci stade bi une minute dix-neuf la bëreeg Ibou Afia daan ko jël bu rëy. moom jeex jàmm nekk xale boo xamante ni te làmb na ko bàyyi xel na ko ay mbokkam jàppale ah, parce boo xamante ni te macha allah mën na bëri loolu waaye ni mu ko waxee rek dal ak yar gi nga xamante ni peut moom na tamit peut a xew a baax a baax la woon nu mu tuddati sax Ibou Afia mhm. mu nekk xale boo xamante ne ni Boucar moom itamit na ko ay mbokkam gën a jàppale parce que dafay derene ful bu bari ba pare nduru mbër ki ko daan bu ko daanee war na koo daan ndax ay morom lañu ay naataangoo lañu nga dem entraîné jiwaat wàcc xam ni champion moo ko daan ndaanaan moo ko daan waaye ba làmb ji jeexee bu kar am na benn miir bu wàcc ci kaw ay ndaw alhamdulilah ba kenn ñàkku ci bakkanam waaye am na ay blessé yu bari yu ci am te nag violence waralu ko làmb jee tas policiers yi ci kaw turbine bi et ñu bàyyi xale yi génn nànk mais dañu doon bousculer pour xale yi gaaw génne stade ñoom ñëpp ñu doon wéeru ci miir boo xamante ne ni dëgërut miir bi daal wàcc seen kaw. miir bi daal wàcc seen kaw ni ñu koy waxee rek des Omar suñu police bi moom des doo leen sax xàmme da ñëw nekk presse sax mais boo xamante ni wala da ngay naan ñii est-ce que ay nit lañ. parce que nit mooy respecté nit. Ah. mais boo solee tenue Omar taxul nga gën nit ñi li lay def différence mooy tenue bi nga sol tenue bi nga sol sa morom sol na ko ba sumi ko kon yaakaar naa loolu tamit dañ si war a bàyyi xel bu baax mais da ngay gis policiers yi di ñëw mel ni ñu nekk en guerre te yaakaar naa tey police xoolal États-Unis da fay dem que avant dara ni ñu lay aborder respect bi ñu lay jox mais da nga ñëw di si wax un policier du nekk sax un policier parce que auxiliaire lay nekk gis des Omar man may di wax Omar man ay copain policier rek laa am ay commandant ak ay ay leneen ak leneen mais des fois nga dem làmb Omar ñi ñu fay andi li si ëpp formation la ñuy nekk wala ñu jóge formation di ñëw xamaguñu sax jànjak joor mais xaw ma tàngooru formation bi moo leen jàpp xaw ma lan waaye respect sax duñ na ko jox waaw te loolu yaakaar naa tey lu lu lu ñu war a xoolaat la am en plus parce que gis nga loolu noonu tey lamb ji jeex na mais nañ bàyyi ñu ñu génn ndànk mais dañ leen di bousculer mm-hmm. làmb lay tas sax

suñu ay policiers naka la ñuy disperser foule benn stratégie dong lañu ñu am ak nu ful bi néew néew wala mu bëri bëri grenade lacrymogène la ñu am te war nañu mën a am yeneen solution bu dul ay grenade lacrymogène ce qui veut dire que formation yi du ma ne baaxut waaye nag ni ñuy wàccee ci terrain bi li ñuy wane wax dëgg yàlla kenn satisfaire aussi. balaa ma débarqué démb rek tiraillement am na rek mais dama gis benn policier bi au mu daw waxtaan dafa daw dem jëli pour te dire que maanaam tey dóor fajul dara nit ñi da ñëw wax ak moom nit ki boo waxee nit moo xam ne kii nit a wax ak man mais koo ñëw dóor ko bu mu ne fayu fayu bu mënta fayu dina def lu tax mu wone meram te loolu yam yaakaar na des mooy koy wax parce que dañoo bëgg loolu am wala dara mais bu ko policier yi fexe nañu ba sénégalais yi yeb leen miin leen dootuñ leen daw dootuñ leen ragal waaw dootuñ leen jox respect tamit mu nekk daal lu dee waar loo xamante ni daal na si gars yi bàyyi xel te bu njëkk yaakaar naa ni looloo gënoon a fës ci xëcc yi di leen jox dig daje Boucar ba suba ak jàmm incha allah mooy dàq ci at bi ak at yi ñëwoon ak yi a a xeex loo ñu ñëw ay cinq minutes yi noonu ku xeex ak ñoom ñu reculer xeex ak Ama Baldé mu reculer xeex ak ñëpp ah, bu nee la di xeex ak Siteu dama pare li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom dóorante ba ne ba ne saay ba mar naan dem naa leen ni wax man loolu laa gis bu la neexee mu def dara <laughs> mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène nationale la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy gi bawal bawal bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4,99 euros seen affiche point com le roi en pay view au Sénégal.